Pero billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim aonsu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe sëriñ Tuubaa jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki téléspectateur u télévision ma faatihul Bichri niñ leen ko baaxoo defele mooy di leen siyaar te cay jiital Cheikh Sidil Mokhtar boroom kër Ngànna di ko ñaanal saa yàlla yàggal ko fi lool te mu wér ba wàccuwaay wi ko yàlla jox mu tooge jotaayib Cheikhul Xadim mu mat ko sëkk noonu leen koy ñaanale moom Serigne Sidi te yëkkati wàcc waaye jox ko mu joxal ñu ko mbooleem ko càllawloo ci Serigne Touba Xaadim Rasuul ak noo ca bokke xanaa di leen fàttali rek ne boobu ba léegi yéen a ngi ak seen programme mu télévision Mafatihul Bichri ci quatrième édition caravane waajal màggal bi nga xamante ne bi ci ndigalal Cheikh Sidil Muxtaar la jóge ànd wër senegal àdduna wërngal képp fenn fu nekk ñu dem fa ba tey jii saa borom dogal nag ñu nekk fii ci Saalum eh, xam ngeen ne nag jëmm ji ñu taxaw taxawal mooy Serigne Fallou Galass Sylla bokk ci ndawi sëriñ bi nga xamante ne bi ñoo jiite yoon wi eh, doon jàmbaar waaye duñ leen ko présenté mukk ci télébision télévision Mafatihul Bichri eh, ngir saa soo xamante ne bii rek télé bi yitte woon na ko lu jiitu karawaan day bay ay yitteem léppam bokk ànd ak ñun ba mu jeex kon sëriñ Fallu eh, ñu jox la kàddu gi nga daal di nuyoo su ko defee ñu doog a jublu ci liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, Cheikh Mamadou Mourtala ñoo ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Cheikh Diop sunu caméraman di suñu mbokkum taalibe eh, di nuyu Alxaaji Madiama Murid Saadix eh, di leen jaajëfal di nuyu sëñ Xaadim sekk ak mbooleem équipe bu Bichri TV di fab sunum nuyoo di ko jaarale ci ki yàlla teg ci bopp yoon wi di Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko eh, di nuyu ak ziare Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir waaye di nuyu sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma ak mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoom lañ bokkal liggéeyu màggalu Touba. Eh, mm, ñu sant yàlla bu baax nag ci nii nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala fayee na sëriñ Touba ci communication ndax adduna bi daa toll ci communication fi mu ne yàlla waajalal na sëriñ tubaa ci sama tey ju day gàcceel sama démb eh, bu fekkee ne dañu wax ne ñu ngi ci Touba wala ñu ne ci ab karawaan te dana leer ñu ne télévision Cheikh Abdoul Ahad waxoon fi lu matagut ñaar fukki at ci yoonu murit ñàkk guñ mën a ñàkk am niñ bëgg ci wàllu communication ci Sénégal ak li sëñ liggéey ci Sénégal ba waxoon ne bu dee loolu la bu ab rajo jaaratis Touba wala ab télévision nañ ko yemale ba ca Mali ak ba gi nekk nam ko waxe woon tey jii lu man ñeen fukki organe presse jóg yoo xamante ne bii yëpp sëñ Touba leen moom ba benn sax nekk Amérique boo xamante ne bii Touba lay lay la kàddu gi jóge di dem Amérique ñu ñu koy ñu koy tisaare loolu yàlla fay sëñ Touba yàlla fay sëñ Touba kon ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax baax ci liggéey bi. waaw kay sëriñ bi euh, yaakaar naa ne nuyoom boobu am na solo waaye sëriñ Fallu dafa mel ne diirub li nu déparé jaar nañ ay dëkk yu baree baree bari waaye gis nañ ne euh, foo ci dem rek dañu lay teral teeru la jàppale jëmmi sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul du nu la yemale ak Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ne fa nga bàyyi ko euh, du nu leen wuutalee ngeen jéggal ma ndax dañuy jàpp ne ñoom Cheikh Sidil Muxtaar moo ñëw ci seen biir waaw dëkk yooyu nga xamante ne bii ñi ngi xeeñtu jëmmi sëriñ Tuubaa ji sëriñ Tuubaa ana lu mu ci waxoon. waaw bala ñuy ñëw ci li sëñ Tuubaa waxoon dañuy ñëw ci li nga xam ne moo ñu tax a jóg xam nga euh, hmm, président de la république bu toog ci am réew ak constitution réew ma président bu ne ak programme am campagne sax boo koy def population bi dañ lay laaj lan mooy sa programme loolu àdduna bu lay ci wàllu yàlla nitu yàlla ku ne ak programme ba ko yàlla def loo boo xoolee ci yonent yi yonent bu ne dafa am mission bu ko suñu borom joxoon boo xam ne pour moom la war a remplir yonent yàlla Muhammad rek la yàlla waxoon ne ko ma maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas nga xam ne moom mission complète la yor Serigne Touba njabootam gi kenn ku nekk ak mission bi la def loo boo xoolee ci jamono Cheikh Mamadou Moustapha al Karim li mu daj ci ay nattu ak ay tumuranke ak li mu jànkoonteel ci taxawal yoonu murit taxawal yoonu murit mooy nose ko programme seex si taxawal jumaa ji organiser daayira loolu moo doon mission samp doomi sëñ Tuubaa yi Seex Madul Fadal gis nga ko bi mu ñëwee rassembleur la woon nga xool ku mel ne Cheikh Abdoul Ahad bâtonnier la woon liggéeykat xoolal ku mel ne Cheikh Salihu Mbacke jàngalekat la woon nga ñëw ci ku mel ne Cheikh Mahamadou Lamine Baara yaatalkat la nga ñëw xool ku mel ne Serigne Touba Cheikh Sidi El Muxtaar benn le la ko sunu borom di def loo benn le kàddu googu la njëkk yëkkati ci àdduna muy dama bëgg islam bépp nekk benn loolu bi mu ko waxee wax gi yëmu ci da ko wax ba nag bëgg koo jëfe loolu moo tax mu keree karawaan bi keree karawaan bii yow ci sa bopp rek nga jànge ci karawaan bi li mu def ci ci innamal mu'minuuna ixwa mooy li yàlla wax na julit yëpp ay mbokk lañ na ngeen yéwénal seen diggante di ko laabirante li ci karawaan bi liggéey ci diggante ñeenti at yi ginnaaw bu nu jaaree Fuuta murtani kajoor ba ñëw saalum yaar yi gën a yéeme mooy benn bu njëkk bi mooy bi ñu jaaree ñii bi ilimaani tijaan yoo xamante ni bi am na lu mat juróom-ñett fukki at toll ci wéradi sax bay nekk hôpital mais doomam ju mujj am caatam Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar la ko tudde lu mu ci jublu mooy bennoo gi la wax ne nga ñëwaat fu mel ne Kaffrine gi fekk fi ilimaan imaam sëñ Moustapha Diop di mu xaddamu Alaaji Malick doomam Cheikh Ahmed Bamba la ko tuddee loolu la la la la la yonent yi fi ñëwoon loolu lañ bëggoon sëñ tubaab loolu la doon jàngale alxuraan loolu la jàngale loolu mooy li nga xam ne moom gis nga fi ne tubaab bi dañoo jóg ngir teq teqe la diine diine woo war a am fayda ju mel taqaloo moom ndax al aljamaa rahma te mm, wolof nee na mbooloo mooy doole waaw kon liggéey bi nga xam ne moom tax karawaan bi jóg di topp euh, sur la tranche de Cheikh Ahmed Bamba waaye jokkaale bokkuk l'islam gi ñoo ngi njëkk a jaar Ahmed a Ahmed Ñewel dëkku sëñ Cheikh Fatako Diop la sëñ Cheikh Fatako Diop mook way juru Cheikh Mamadou Mourtala ñoo bokk ndey ak baay moom la sëñ Touba daan loo mbooleem lal yi nekkoon jaaree mi daan teg bant yi ci loxoom la ko daan liggéeyee ah yaakaar du ñàkk ngeen gis image yi ci télé bi euh, kooku sëñ Paal Diop lañ fa fekk foofu bi sëñ Touba jógee ci géej gi ba ñëw ba ñëw Daaru Salaam ba dem Daarul Manaan jaxasoo googu mu amaat bi. can dañoo wax bur si la doon seere mbaaxaan ñëw fa bi tubaab bi woo sëñ tubaa amet ñëwee lañ njëkk a daje moo tax Musaa Ka naan ba ñu daje warulu fas warul gëleem daa tànku ba mu dajeek ñoom waxul kenn waxu ko loolu amet ñëwel la woon bi ñu jógee amet ñëwel tiib lan jaar a tiibu nafs waaw teeyug bakkan Cheikh Mamadou Basir moo ko sanc atum 1930 ay 39 wala 25 wala 26 jamonoy sëñ Tuubaa loolu li ñu ciy jànge mooy njabootu sëñ Tuubaa gi niñ teel a demee ci àll bi toj ko jaamu yàlla liggéey ni sëñ Tuubaa soso yoon wi ñu jóge tiib jaari e, mba e, dëkkub Cheikh Mahamadul Fadal nga xamee muy Madina booba foofu sëñ Fallon ko sanc ay 39 40 déedéet waaye diggante 38 39 la ko sëñ Fallou sanc fekk fa sëñ aboomu Cheikh Mahamadul Fadal nga jóge fa dem Kolobaan xool stratégie bu Serigne Basirou bi nga demee Kolobaan ko fekk sëñ Modou Ablaye moom sëñ Cheikh Astou Fall mu sëñ Bachirou nga xool diggante tiib nasru weesu Madina booba teg ci Colobane amaat na foofu benn seex bu mu teg foofu nga jógee Colobane fekk waa Mbarde la teeru njabootu sëñ Balla Coro njabootu sëñ Talxatu Buso waaye famis alaaji Ablaye Fall tijaan yooyu nga xamante bañ fa demee gis nga discours yu rafet yi ñu fa yëkkati ak benn léegi euh, nga joge Mbar dëgmal ñibi ñii bi moom mobilisation ba nga fa bañ fa gis yaa ko gisal sa bopp autorité maire ba préfet ba président daayira ba seexi sëñ Tuubaa ya imam yi ñëpp ànd loolu di jàngale lan mooy benno waaw ah, benno benno te fu jaar rek da nga xam ne li sëñ Sidi Muxtaar di jàngale leer na noonu lañ koy toppee ba ñëw fii tey jii Kaffrine Kaffrine nag yaakaar naa bi ñu ñëwee ci mobilisation bi nga gis Kaffrine yaa ko gisal sa bopp lu ëpp ñetti téeméeri oto àndandoo dëkk bépp gàndandoo ñi yëkkateendoo jërëjëfe Cheikh Ahmed Bamba sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye si daana wax ne baax ne neel sëñ Touba baax nee na sëñ Modou Fall aram kan ne baax ne sëñ Touba baax mu ne ko boo ko bawut lee baax waaw boo ko bawut baax waaw mag ñi foofu lañ tegoon sëñ Touba loolu mooy mooy li tax karawaan bay jóg mooy kumpa gi dañ ci suñ diggante ñoo xam ne ñoo bokk benn xibla bu ni jublu ñoo bokk benn téere bu ñuy jàng mooy alquranul karim ñoo bokk benn yonent bu nu yaakaar ñoo bokk benn dëkk bu ñuy aje muy makkatal mukarrama ñoo bokk ndey ak baay ci dëkk bi ki doon tijaan ki doon murit seen ñaari maama bokk baay ndax fi ne li ngay njëkk a jàng rek mooy Ceerno Farimata mi nga xam ne moo jur Mati Mbàkke mi jur Ousmane mi jur El Hadj Malick maam Maharama ko jur sëñ Tuba mi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali mi ko jur maam Balla Aysa maam Balla Aysa maam Maharama dem caatam sëñ Tuba di nijaay El Hadj Malick ci lépp. kon loolu caaxaan ñu tàqale ab dëkk nag bu ñu fa bokkee ne ay oto ngi nii bari fukki oto ñaar fukki oto fanweeri oto ay oto bu ñu baree ci ab dëkk benn chauffeur moo mën a conduire oto ba waaye chauffeur su bari du mënuñu koo conduire yàlla dogal nag garage bi ñu daje ay chauffeur su baree fi de waaye sëñ Tuubaa mooy brevet bi nga xam ne moom la yàlla jox oto bi nekk foo sa permis nag ne chauffeur laa kon kii du ma dawalal boo duggul ci oto bi doo dem loo doon doon chauffeur am permis ki yàlla jox oto bi mu koy conduire mooy Cheikh Ahmed Bamba safoor sépp dañuy dugg ci biir ak ñi apprenti yeeg yi mu yóbbu leen yàlla ko tànnal la haada abdullahi xaadimu rasul dunya wa oxra izmatan wa xayru rasul yàlla yàlla yàlla may jaamu yàlla ba mu jox ma garaatu ma nekk jëwriñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw aw ma nag lu ma waay waxal ku mu mën a doon na nga xam ne boo ma bëggee boo ma bañeek boo ma mere lu ci mën a xew na nga xam ne daal man mi kitaabullahi bii mooy sama àndandoo yonente bi sallallahu alayhi wa mooy sama wasila ñaan naa nag yàlla faj aajoy képp koo xamante ne bii yëngu nga ci sama mbir lu toll na tarfatal ay ni waqdi hawaïja alladina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu képp ko am yitte ci àdduna nu itte ja mën a toll yow yàlla ñaan naa la nga faj ko ci bu ma liggéeyalee ñu ne ko kon mbàkke nag yowmal xiyaam jiñ la toppe nag mu ne inna alladina saarahu fi xidmati fa lahumu diyaara wasal jannati ñi nga xam ne daal takk nañ seeni dàll ba mu dëgër ñu takk seen laxasaay ci seen digg jóg di ma liggéeyal buñ faatoo nañ tàbbi àjjana kon aajoy àdduna ak jooj àllaaxira mi ngi fajoo ci liggéeyal sañ Tuubaa yal nañ ko yàlla defal. gis ngeen liggéey bu am solo boobu nga xamante ne bi Cheikh Mamadou Fadal def na ko eh, di jàmbaar joo xamante ne bi caravane bi wax dëgg yàlla yéen a ngi digg ay kàddoom yoo xam ne mi ngi ci ko yëkkati saa soo xamante ne bi teew nan ak dëkk bu nu mën a teew mu ciy liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasuul di jàmbaar lool di ku bëgg maam Cheikh Anta Mbakke waaye kon mbokk yi xam naa ñu fàttali leen ni e, fii nu taxaw tey e, fi la depare déparé nag daal di nag waajal suñu cinquième journée ci caravane spéciale màggal Touba ñu ànd kook Serigne Modou Mbakke si ak Serigne Xaadi Jaxate ak ki nga xamante ne bii nag moom moo doon wax ak yéen léegi e, di Serigne Fallou gala Silla xam naa dañ leen di eh, siyaar bu baax yéen mbokku téléspectateurs yi di leen jox dig ci kanam tuuti ndax dañuy ànd ak yéen incha allah eh, ci kanam tuuti eh, dinañu séqaat waxtaan ak keneen koo xam ne moo jiite caravane bi di sëriñ Modou Mbakke si mi nga xam ne moom la sëriñ Basum sëriñ Abdul Xaadir Mbakke jiital ci caravane bi mu ànd koog mbokki taalibe yépp xam naa maa ngi siyaar sëriñ Cheikh kon mi nga xam ne moo féete ci caméra bi di ko ñaanal ndax jàmbar la lool saa borom defal ko jàmm. Eh, te dolli ko kattan ba naal wu mu naal lëggeel ci Serigne Touba mu yeggale kook sagom eh, di siyaarewaat bu baax Serigne Pape Gora mi nga xamante ne bii wàccuwaay ak yàlla gunu indaale ci karawaan bi rek macha allah moo yëkkati ay mbubb yu jëmme yu daraja yoo xam ne jubluwu ci lu dul lëggeel Serigne Touba jox ñu ko ne waaji leen ko kon moom itam xam naa noo koy nuyu eh, bu baax di ko siyaare di siyaare bu baax it ki nga xamante ne bii mooy Serigne Babacar Saliou ci turu Serigne Ndiaga Seck mi nga xamante ne bii. moo jiite Bichri TV fii ci senegal xam naa kon maa ngi leen di jox dig daje ci kanam tuuti ànd ak yéen ci caravane Cheikhul Khadim bi nga xamante ne bii moom la ñu fas yéenee ànd dox liggéeyal jàmbaar jooju nga xamante ne bii wax naa ne waxoon na ne sama dox bu rëy bii ngeen gis ma di ko dox lu damay dem ngir wut mbooloo du damay dem ngir wut addiya waaye lu benn la diine ji moo ma tax a jóg Cheikh Sidil Mokhtar ñëw. confirmer loolu euh, yabal mbooloo mu doy nii ñu dol euh, di ay nit ñoo xamante ni bi dara ñuru leen lu dul alquraanul karim euh, di wax yàlla ne yonent ne sëñ Tuubaa ne mu boole leen ñu ànd ak mbooleem journaliste yi nekk yi ngeen di gis fii ci Sénégal ak bitim réew sax mbooleem koo xamante ni bi yaa ngi yëngu ci presse tey Cheikh Sidil Muxtaar dajale leen boole leen ak ndaw yu am am solo yi ñu ànd nag manko bennoo di wane liggéeyub Cheikh Sidil Mokhtar bi nga xam ne moom la wax ni sëriñ Touba Khadim Rasoul moo ko fondement waaye moom mission mooy àggale ko kon xam naa mbokk yi kon dama leen di jox dig daje ci kanam tuuti ñu ànd ci caravane spéciale Bichri TV au service de waa kër Khadim Rasoul jërë ngeen jëf